yow mi ñu tudd Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem yow mi ñu tudde yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem sa tur wi wenn rowu ko sa waajurit kenn gënu ko saw askanit kenn gënu ko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 kon mee tafaa may mii tafaa li tax mu sangaay kemam madina géeg taayif kële tuubaa gi léeg taayif kile yi ñoo ko tollale kum neex nga dem natti ba taar ba newoon ca Mustapha moo nekk it ci mii tafaa wér ga newoon ca Mustapha gis nañ ko it ci mii itam Cheikh Mustapha musula war telum la wax loola la nar